ngay xam bi may nekk réew mi ñoo ñëpp lan lay woo seen bëgg euh, sëñ Abdou Lahad ak euh, saa na la nuyul ma saa nuyul ma saa ndax sañ Abdou Lahad euh, ak nu mu marqué jamonoom parce que moom bi muy nekk bu général ñun ay tout tànk lan mais pourquoi ñu koy retenir à chaque fois benn bokk na ci way wi ko ki ne laam woyoon wax tabax jumaay Tuubaa kii nii dare kaamil yooyu yëpp day tax ngay retenir jëmm mais aussi tamit mu amoon mandarga ci colin ak waa Hizbu Tarxe ak yooyu ñun ñu dëkkoon ci koñ boo xam ne murid dañ fa bari woon ñoom Alsan Kan maa ngi fàttaliku bis bu mu dëdd euh, euh, dëddoo Alsan Kan euh, tànku neen la def di daaw maanaam mu doonoon benn ambiance boo da ngeen di xale mais ba léegi day nekkaat ci même boo nekkul sax murid mais da maanaam ambiance boobu nga juddoo day tax yow yenn sax nga ko doon màggaale mooy Hizbu Tarxiya mbubb mi di baylaat parce que moo doon identité boo xam ne tey jii jarul sax nga naan diw murid la bu ko solee rek di nga xam ne kii fa la féete ak moom mooy kan mu doon ko marqué jamonoom nag doon un régulateur doon un médiateur aussi tamit ci fi ci jamono yooyu ci wàllu ko politique mais aussi mu doon ñoo xam ne tey jii ñiy wax ci réew mi koo wax mu ne euh, la sëñ Abdou Lahad waxoon bari na ay kaddu yoo xam ne tey jii dañ koy répété waat dañ naan na mu ko waxee woon ak la mu waxoon moo tax tey jii ñu indi ko ak màggal ji ñu waajal dimanche kon euh, ñu teewlu aslëf ci kàddoom rek dellusiwaat maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm bëgg nag nu waxtaan ci ay fànn ndax ci la sunu njariñ ne ji ci jëkk moo di kan yàlla yàlla dafa fa portolem na te nattabliwut ni mu ni mu ni mu wone noona rek la mel alam tara anna allaha yaalamu ma fi samawati wa ma fi ardi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم yàlla dafa ne moom de xam na li ci biir asamaan xam na ci biir suuf nanu wóor ne fu ñett ne moo leen ñeenteel fu ñeent ne moo leen juróomeel fu juróom ne moo leen juróom benneel fu mbooloo ne mu nga ci seen biir te lépp lu ñu jëf mu ngi koy téye te dana leen ko jotti leer mu wis penc ba ndax dara ump ko kon kooku melaw yàlla kenn ñu nettali wu ne noonu la mel kuy jëflanteeg yàlla nag <clears throat> dafay soxla nga xamu melam Sëriñ Tuubaa itam diggam mm, ak yàlla li mu jëflante yàlla ah, dafay lu wér ngir ba mu xamee ne nii la yàlla mel nii la yàlla toll nii la yàlla yi defee ba noppi yàlla teg ci ne yàlla yàlla dellu teg ci ne li kulli ummatin ajalun isa jaa ajaluhum la yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuuna xeet wu ne am na diggu mu war a nekk ci kaw suuf saa du ca dolliku saa du ca wàññiku ba ko loolu leeree mu daal di ba lépp fab léppam jëmee ko ci yàlla ak yonent bi bañu dara lu ñetteel ci moom mu doonoon kàddu ko sëriñ Abdou Lahat Mbacke doonoon ay kàddu yàgg mooy delloos ci ñu ci yàlla rek def ni li ñuy def ñun du kumpa ci sunu borom kon lépp lu ñuy jëf ci àddina rek nañu bàyyi xel ni yàlla mi ngi koy teewee te mu ngi koy seede te mu ngi koy fekkee teg ci nag ginnaaw yàlla ak yonant bi jàpp na ni leneen nekku fi lu dul loolu mm, loolu di ay kàddoom euh, di sëriñ Abdou Lahad Mbacké xam naa ni Cheikh Bara moo ñu koy gën a miin euh, Cheikh Bara lan nga nu mun a wax euh, ci sëriñ Abdou Lahad Mbacké waaw ñoo ngi kontaan bu baax ci thème bi nga indi tey ndax ñaar ba ñett benn bu njëkk bi mooy actualité la ndax euh, dimanche ak jàmm di la 14 ci weeru mai di tombeek ñaar fukki fan ak ñett ci weeru korite wii muy dimanche ci ñu jëm mooy màggaluk si Abdou Lahad Mbacké mm-hmm. te ku ne xam ne ne euh, sëñ Abdou Lahad dundam ci kaw suuf dafa marqué Sénégal marqué yoonu murit kon bu ñu ko jàppalee ab bis bis boobu dafay nekk actualité ci sénégalais yi waaye mu nekk tamit koo xam ne euh, doomi Serigne Touba la mi ngi juddu ci njaareem la juddoo ndax sëñ Touba mi ngi ñëw euh, sëñ Touba mi ngi ñëw mois de janvier 1912 lañ ko jëlee ci yéen Jolof indi ko mu ñëw njaareem. 1912 1913 1914. ci mois de août ci la sëñ Abdou Lahad Mbacke gane àdduna. Mhm. waaye nag euh, dinaa ci am ab jàngat boo xam ne suma jàngatu bopp la. Mhm. mooy sëñ Touba bi mu wootee yoonu murit tubaab yi dañ koo xeex ci ay façon yu bokkul yu bari bokkoon na ci xeex bi génnee ko réew mi biñ ko indiwaatee gis na mbooloom dafa yokk ak bayreem ñu ñu ne wóoru ñu koy bàyyee ak nit ñi muy gisee ak ñoom toujours toujours ñu jël ko yóbbu ko gànnaar mm-hmm. ca mois de juin ca 1903 mm-hmm. fa lañ ko bàyyi ba 1907 1907 ñu jële ko fa gis ne moom na li ñu bëggoon ci moom naari gànnaar yi ak génne ko gànnaar taxut mu dañ ñu yóbbu ko Ceyeen Jolof mu nekk ci yenn Jolof 1907 ba janvier 1912 ñu xeex sensé méthode xeex boo xam ne bu fekkee seetlukat nga ak jàngatkat bu xam histoire di nga xam ne. Hmm. ab ab xeexkat ab ab xeex la woon. Hmm. mooy jële gi ñu ko jëlee woon ci yéen Jolof indi ko njaareem waaye ca at mooma maanaam ca 1912 lañ ko indi njaareem 1913 lañ indi benn tubaab bu ñuy wax Paul Marty. Hmm. Paul Marty nekkoon ab tubaab boo xam ne français la mais dafa juddoo Égypte. ak diggante Égypte ak Algérie ak Maroc yëpp la dund mais Algérie la juddoo nekkoon ko am xam-xam ba nga xam ne bu bindee aw woy bu ñu la ko wanoon ne la sëriñ sëriñu senegal ya ko woy doo ko weddi te loolu sax jëfandikoo ne méthode boobu mooy dañoo tàmbali woon léegi jël sëñ Touba di jéem a saboté mbindam ak di mën ay rapport ci moom maanaam def rapport boo xam ne ci arab nga koy bind wane ne kii sax nekkut ci lislaam li muy woote lii lislaam nanguwu ci lii ba noppi jël ko def ko ay def ko ci bibliothèque yi mu des fi. boo xoolee nag li may wax mooy sëñ Touba yàlla dafay pare programme léppam ndax Paul Marty mi ngi ñëw Sénégal 1913 tàmbalee liggéey ay ay ay ay rapport ci sëñ Touba bi bëri na ñuy ñu bëgg a ŋàññi sëñ Touba dañ naan la Paul Marty ko wax te Paul Marty 1913 la fi ñëw 14 1914 tàmbali naa bind ab rapport di wàññi murid yi ñaata lañ ak ndax ci lislaam lañ nekk ak nekkuñu ci léegi nag koo xam ne bi ñu indee ki la war a ki la war a saboote ci étude. ay ay def ay ay rapport saboote la ci wàllu xam-xam maanaam 1912 13 la fi ñëw mais 1914 ci mois ci at mi nga xam ne ci la Paul Marty tàmbali liggéeyam boobu ci la sëñ Abdou Lahad gane àdduna dégg nga te boo xoolee sëñ Abdou Lahad ñëpp liggéeyal nañ sëñ Touba mais ci côté xam-xam mooy binduluwaat mbindum sëñ bi def ko ci bibliothèque comme ni bi Paul Marty doon def binduluwaat ay woo ay ñu mel ne sëñ saa mbay jëlee. Euh, euh, ay téere ci arab yóbbu ko ci français mel ne boo ko xoolee dafay mel ne dund suñu Abdoulaye dafay contrer sax maanaam liggéeyu Paul Marty mhm. te Paul Marty mooy mooy ki gën a dangereux tubaab bi installé pour mu pour mu pour mu dal ci kaw sëñ pour pour mu yàq liggéeyu sëriñ bi dem na ba jël jabaru William Ponty mii way ko ay xasiida daal di wax ne sëñ tubaab moo ko way maanaam way ay xasida ci génn jigéenu tubaab di ko tàgg pare moomale xasida gi sëñ bi mhm. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu temps bi yaatu woon da nga koy mën a wax Euh, yooyu kon damay gis ne man Serigne abdulaat maanaam malgré doomi sëñ Touba la mais dafa nekkoon lay woo xam ne sëñ tubaa daf ko indi woon ngir xam-xam te it moom rek moo defar ab euh, ab ab ab ab euh, daaray kaamil maanaam defar université kon donc sëñ Abdou liggéeyal na sëñ tubaa ci yokk jumaa ji yooyu mais dafa mel ne layu lay woo xam ne sëñ Touba bi bi sëñ Touba daal bi mu amee noon bu tudd Paul Marty ci la ko sëñ yàlla may doom ju tudd Abdoul Ahad mu koy taxaw ci wàllu lépp luy xam-xam soo demee da nga ciy fekk ñu ne la lii la ci sëñ Abdou Lahad taxaw ndax mm-hmm. yoonu murit ci université sëñ Abdou Lahad ko njëkk def mm-hmm. loolu euh, loolu rek laa xam ne bu temps bi mayeewul ñu yàggal laa ci mën a indi li ci des nag mooy pour nit ñi ko xamul mooy ñetteelu xalifa sëriñ Touba bi fi sëñ tubaa jógee en 1927 sëñ Moudou Moustapha ko donn bi mu fi jógee en 1947 sëñ Fallou jël ba fi sëñ Fallou jógee 1968 sëñ Abdou Lahad moo fi nekkoon xalifa sëriñ Touba ba bi mu fi jógee fi la sëñ Abdou Khadir jël sëñ Abdou yàggu fi onze mois la fi def sëñ Saalihu Mbacke jël euh, doomi soxna Mariama Jaxate la moom ak sëriñ bu Mbacke mu sëriñ Touba ñoo bokk benn ndey ak benn baay euh, mooy way juru sëñ Sidi Abdou Lahad Mbacke tamit maa ngi koy ziar ci màggal gi ak ñoom sëriñ Dan mu sëñ Abdou Lahad ak Cheikh Abdou Mbacke mu Cheikh sëñ Dan mu sëñ Abdou Lahad ak sëñ Sidi ak euh, di nuyu tamit sëriñ Mortada mu Cheikh Abdou di nuyu sëriñ Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ak sëriñ naa ak euh, ñoom euh, ñëpp rek njabootu sëñ Abdou Lahad gépp su ma limee damay juum ba ci soxna kenn Mbàkke tam maa ngi koy ziar bu baax sama jigéen la di doomi sëñ Abdou Lahad Mbàkke waaw di wax tamit nag dimanche boobu man sama maam di jur sama yaay ñu koy wax sëriñ Maam Mbayloo ci la génnoon àdduna daan nañ ko defal ñaan nag mais daal euh, bii yoon nag sama nijaay mi mi fi nekk xalifaam dafa décidé ne dañ koy def màggal gu mag euh, woote ko nit ñi ñëw ci bu baax a baax mu dëppale kook màggal gi loolu itam maa ngi ciy yëgal ñëpp kon dimanche ak jàmm incha allah foofu ci daaru xuddoos kër sama nijaay seexloo caara dañ fay amal màggalu sëriñ mbay loo mi nga xam ne mooy euh, way juru sama nijaay moo jur sama yaay. Euh, ñi koy dundal foofu ci daaru xuddos maa ngi ciy woo ñëpp. incha allah rabbi coot ceeg euh, def ci la te tax mu gën a xumb. Mm. sooy bu sëriñ Abdou Lahad ci tubaa ki wax na tontu na tubaab yi ci bind ah, ah, waaye tamit tontu na leen ci rupture ci Touba. maanaam lépp loo xam ne jàppoon na ne mun na gàkkal dëkk ba rek moom bi mu ñëw da cee taxaw. Mhm. jërëjëf Omar euh, ci sëriñ Abdul Ahad mi nga indi tey di actualité sëriñ Baara wax na ko. Mhm. Mm, mu nekk nag. Mhm. loo xam ne du ñu jéggi jaaruñu ci doomam ji nga xam ne tey moo fi ab xalifaam. nekkal ko fi mate sëkk ci taxawaay boobu. xam nga yoonu murid dafa yàgg ci kilifteef. te kilifteef kooku dafa am ñu koy wane ci ay façon yu bari. xam fa am ñaari façon yar yar ci wax ak yar ci doxalin njabootu sëñ Tuubaa ak li waral euh, ñaar yi bu fekkee ni li may wax nii ñi jaar ci seen kër yi di muritu wala ñu yàgg fa dañuy dem ba ba ni mbàkke mbàkke di waxee sax ak yar bi ñu am loolu la ñuy am mm-hmm. maanaam ñoom dañ leen yar ci jëmm ci xool gi nga xam ne moom la ñuy xool kilifa yooyu sëñ Sidi kenn mësul gis événement bu xew kenn mm-hmm. moo xam sax màggalu sëñ Abdul Ahad la mu yëkkati kàddu comme nañ ko gisee moom moom jubluwaay bi mu am mooy yoonu murid dafa am kilifa. bi ñu àndee màggal daaw demoon fa ñun dañuy dem bu ñu dem këram souvent dañuy àndaale suñu caméra comme lii xew mais soo ko bëggee wax loo dañ naan la nee na du wax kàddu gi genn la sëñ Muntaxa moo ko yore amul leen lu muy wax du def du dindi loolu nag dafa jafe lool di fàttali nit ñi la xewoon ca sëriñ di Maxtaar ba mu fi toogee nga xam ni màggal googu bokkoon naa ci ñu couvriroon keroog bi ñuy dëpp sëñ Muntaxa après rafetal nañ ba rafetal nag waaye dañ koo dëpp maanaam dafa doon ñëw di julli si ñu dëpp ko ni président mooy ñëw cortège mu tombé cortège président ñu bloqué ko ak la fa xew yëpp ab bi ñëwee kàddu yi ni mu ko rafetaleeg yooyu yëpp euh, da ngay wane rek kilifteef moo tax ba muy jël kaddu li mu wax dañ su ma ci amee ndigal ndax mën na maa wax sëñ Sidi Maxtaar jox ko ndigal mu wax ndigal loolu yàgg ci yoonu murid nag moom la Serigne Sidi doxee ba fi mu toll nii amul lenn loo xam ne benn dogal bu muy jël ci biir Touba ci ay wax ak ki jëf lu dul ne Serigne Muntaxa lay déglu kër sëñ Abdul Ahad Mbàkket boo xoolee kër sëñ Touba maanaam jumaay sëñ Touba doomi sëñ Touba yi ñoo ko wër ci ay kër mm-hmm. kër gu ci nekk ak na ngay doxee ak façon bi fay doxe mm-hmm. waaye demal nga wër kër sëñ Sidi moom sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ni mu jëlee mm-hmm. wàllam social ni mu jëlee li nga xam ne mooy social di ko doxalee ci ñi néew doole néew doole goo gis boo demee Touba fekk biir kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke bu ñuy ñëw dañuy ndékki añ bu ñuy reer yenn saa yi am ñu ñu tibbal ñu yóbbaaleel seen njaboot mm-hmm. weeru koor ga ba léegi mataar mi ñu koy wax ni boo demee kër sëñ Abdoulaye day mel ni màggal gi tey la ci nit ñi nañ fay bare nga xam ni dem nañ sax ba dafa leen fa ay mbaar yoo xam ne bu ñu ñëwee fa la ñuy nekk di xéewloo ko di fiif loolu nag mm-hmm. lu am solo loo xam ne dafa bokk ci yoonu murit te sëriñ Sidi daf koy daf koy doxee mu nekk nit koo xam ni nit ku wàcce boppam la mm-hmm. man keroog bi may njëkk ànd ak saa njógu mbéy nga di ko teg bët dafa gis saa rek daal di jóg fi mu toogoon ndeysaan nuyoog moom saafonte laajte nga xam ni kii dafa am lu ko lu maanaam dafa am lu ne ci moom daal sëriñ Abdul Ahad nag euh, radiallahu anhu dafa am maanaam yar bu mu indi ci yoonu murit dañ daan wax naan bàyyi laata ngi ñëw wala bàyyi laata ngi wax asalaamaaleykum asalaamaaleykum gim daan waxam fu ñu ko masaan a dégg ci rajo ñëpp taxaw ñëpp di ko déglu ngir nam daan waxee bari na lu mu daan waxee maane maa ngi koy faral di wax saa jógu si Abdul Ahad Mbàkke da koy wax maane léegi maaneem googu nag dafa am lu bëri lu muy def muy kenn du ko yokkal ay waxam est-ce que sax man mas naa gis fu suñu Abdoulaye fu ñu koy jottalee ay waxam defe naa yombul bu fekkee am na bariwul ndax dafay bëgg li muy wax leer loolu euh, demoon na ba bu masaana dalal njiitu réew mi ci jamono jooju nga gis waxin wi ni muy àndee ak sell su waxee ak Senghor ba pare ni ko nag nga may ma ma wax ak sama mbokki jullit yi c'est-à-dire pédagogie bi nga xam ne amoon na ko ci wàllu wax loolu li ko may mooy xam-xam bi sëñ baara doore te mu jàng ko géeju ci loolu nga xam ne loolu moo waral bi ñëpp ñëwee ku ne am daara mu am daara joo xam ni alxuraan la ko jagleel muy daaray kaamil ca Touba. Mm-hmm. nga xam ni boo demee visiter foofu loo bëgg a xam euh, ci histoire yoonu murid loo bëgg xam ci sëñ Touba loo bëgg xam ci sëñ Abdoul Ahad Mbacke euh, daa ko xam. Mm-hmm. Euh, en tout cas daal dañ koy ñaanal mais saa yu nit jëmee dara. man nga ni sëñ Abdou Ahad Mbacke deen alaaji ah, ma woon moytu tàmbali ma ne ko ci saa njóogu laa ko déggee sëñ Abdou Ahad nee na nañuy moytu tàmbali man daal su may commencé di jox biti ab bouteille bu dee mën naa ko continuer naa ko continuer bu dee mënuma ko nag sëñ Abdou Ahad Mbacke nee na nañuy moytu ak tàmbali ndax nit la nga tàmbali ñaare mooy wéy kon nag euh, pédagogie boobu mu amee woon yàlla nañu yàlla xiir ñu dégg waxam te di ko jëfe mooy li alxuraan naan sami'na wa ata'na. maa mm-hmm. njóogu. macha euh, waxtaan bi am na solo. Euh, daanu ko ah, waxtaan bu kii bu làmboon euh, poos yi ah. <laughs> voilà. <laughs> bi muy wax. waxtaan am na solo Cheikh dafa wax lu am eh. solo. loo eh. xamante ni bii sax ci la parce que Cheikh Bara kii nga doon wax nu mu tudd nga ne tubaab ba nu mu tuddati. Paul Martin Paul Martin. parce que boo xoolee parce que Cheikh Bara dafa expliqué ne baatin pour Martin dafa ñëwoon ngir caaxaanee mbind yi mbind mi mm-hmm. bàyyilaat. moom la ñuy wax ñàkk caaxaan ba noppi mu daa dee teg li nga xamante ni bi moom la teg ca tuubaa ba caaxaankat ya nekkoon ca tuubaa gis nga na nga xamante ni bi noonu la leen def ca bitti génn leen ca ba tey loolu nekk li nga xamante ne bi mooy dox ca kii tey rek bee teg sëñ sa mi ngi fàttali euh, sëñ Abdou Lahad na mu nga xamante ni bi noonu la taxawee woon ci dëkk ba ngir yu baree bari daal dee dakk tuxum poo nag yenn col ko jaxasoo góor ak jigéen ñeeg genn yooyu yëpp ñu dégager ko ca la nga xamante ne bii mooy dëkk ba kon da ngay gis ni turu ñàkk caaxaan googu ginnaaw bi mu tontoo kii ci daaray kaamil ak parce que ñële bañ ñëwee def seen bind ak yooyu la nga xamante ni bi moom la def ci daaray kaamil ba noppi ak ni nga xamante ne bi noonu lañ doon bindaatee kii nga wax ko mu nekk loo xamante ne bi lu am solo kon ma jàpp ni euh, borom bi euh, sëñ Ablaye dafa ñëwoon ngir. dakkal li nga xamante ni mooy caaxaanu nguur soosu nga xam ne moom la ñuy wax <laughs> Martin donc nag loolu di lu am solo defe naa ni euh, bi mu doxee rek maanaam maa ngi mës naa dégg si sëñ Cheikh mu ne xaw ma euh, bi ñu woowee waaje pour mu bind alxuraan bi mu ñëwee ba tari aramtaraam defar aramtara fekk aramtara ki mu ne ne ba jamono dox ñu xool ban lañ ciy dégg defe naa ni bosu aramtara waajooju kenn mënu ko kii waaye tey jii tamit téere sëñ bi ni mu wasaaroowee téere ki euh, Martin yooyu nga xam ne moom nga wax pour nga gis ko faw nga sonn ci lool waaye ni nga xamante ni bi moom mbindum sëñ bi moom ni mu yombee ngir nga jot ci loolu moo lay wan la li wolof di wax lu du dëgg du yàgg loolu mooy li ci ne sëñ Abdou Lahad yàlla na sunu borom yokk ay leeram euh, santoon na sëñ Sàmbay waaw moom itam radiyallahu anhu téere yi mu daan euh, traduire ci français yooyu sëñ Abdou Lahad Mbacké santoon na ko ci yu bëri mhm. ngir ñu soppi ko naka la def ba yeneen murit yi yi jàngul yaxu arab bi ñu mën di ko jàng ci français nan la def ba mu tasaaroo sëñ sàmbay liggéey leen ci lu am am solo ci ndigalu sëñ sëñ voilà loolu di lu am solo donc ñu ngi ñaanal bokk taalibe yëpp daal en tout cas di am mbégte ak kontante eh, di ñaan suñu borom may ñu fekk ak tal eh, ba dibéer ak jàmm incha allah ci kàttanu borom bi ñu màggal eh, góor gu tedd googu macha gane si àddina papaam après dafa woo ay proche ni leen ñaanalal leen ma sama euh, tu tànk bi ndaxte mu mu am gudd fan ndax am naa ci moom yaakaar donc lii ñuy wax ci moom yëpp day wane ni yaakaar ba sëñ bu mag bi amoon ci moom tasul parce que am na ñoo xamante ni dañ ko surnommé woon le bâtisseur ñi ni ko l'éducateur dem nañu ba nga xamante ni ci mbirum mbay sax Euh, tappaloon nañ ko fa que ni moom mooy premier cultivateur agriculteur foofu lay ca ca ca diggante beleel ak yooyu. Mm-hmm. donc muy loo xamante ni li may wax rek man heure buñ fi indee benn mag dama naan wàcc nañ fii bind nañu wax nañu. Mm-hmm. buñ ci tegoo rek. duñu duñu duñu réer lenn rek a ma xaw a naqari ci wax ji alaaji saa njoogu mi yóbbu na ñëpp ci sañ sëñ sëñ Sidi ba mu des man su kaa mm. defe naa demagul tamit <laughs> kaas na ko ba sonn ñun daal te yóbboogul sëñ Sidi nag du ci ñun ci moom mii la màggal gi du ngeen màggale màggal gi du da ngeen di yow da ngay avocat saa njoogu wala la màggal gi léegi saa laa waxal na wala saa ma ni màggal gi léegi saa kon wóolu ñëpp ah, yóbbu na ñëpp yóbbu na ma jigéen yóbbu na son yi yóbbu na ñëpp max kaa daal a dem wala kon woon nañu nag du ci ñun ci moom la ah. <laughs> ah loolu la di wala yow yor nga oto léegi léegi nag saa wax ji léegi franco laay non non non yow yow doo avocat sa oto ñaata place la ma ne booy dawal booy dawal dese di dem di ñëw booy dawal dese nga 4 ah, euh, na la des waxala su kaa waxal waa léegi defal essence may na la ci dugal 4 place na la ci dugal quatre places nga dégg man de bés bu may jàkkaarloog sëñ Sidi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla bëgg naa mu jaar ci saa Ndiogu. te kenn gënuñu cee yaay nag. wa salaam defal plein rek. saa na bàyyi wax ji damay yokk de. na plein waaw plein macha allah damay yokk de voilà. sëñ Sidi moom jar naa def. dëgg yàlla maa jigéen moom. ba mu demee sëñ Sidi la dégg euh, euh, madame ak maman. alxayri ah, madame ak ah? Ah, jigéen te ju ne loolu la ko. yàlla day euh, loolu moom <laughs> maa jigéen seede la ci. yow tamit <laughs> jigéen di jaar maa jigéen bu baax a baax di koo ñaanal. di ñaanal sëñ Sidi mu yàgg fii te gën a gën a wér. lenn daal la laa mën a ràññee gars yi ne ku bëgg Walfadjri mais xam naa ku discret la. waaw ku ku discret parce que musuma dégg kàddoom te loolu dafa am solo. mi ngi noonu yàlla na <laughs> yàlla na fi yàgg te <laughs> yàlla na fi yàgg te gërëwér sababu ñu daaneel taa bi ak euh, sëñ Abdou Lahad tamit euh, suñu borom yokk leeram taas ñu ci barkeem maanaam sëñ Abdou moom ñëpp ko fen woon fan quoi parce que ci jamono ji ak ñetti abdu yi ah ñu bokk benn jamono marqué seen jamono aussi te dafa am lu ma marqué loo xam ne tey jii xam na bind na ba fi mais dafa am benn waykat sénégalais bu nekkoon groupe Misaal. non non loolu dama koy lii rek pour walla ni rek. dama dama dama dama kii 10 minutes. mais eggali. <laughs> groupe misaal xoolal li ma wax ne dafa am solo ah xam ne waykat yi jël des fois jël xam ne fii suñu waykat dañuy way uh-huh. mais da ngay gis ñu way yoo xam ne jarul way mais mais ah, waa ji wëskali la tudd wëskali la tudd moo ah. nekkoon group misaal waa ji dafa am benn way bu mu wayoon war naa ko ci internet bi sax gisuma ko mais da ko tuddee Euh, mooy ki way RFM matin Babacar Fall. waaw euh, waaye bi la ko tuddee kaddu Baye laxaat léegi wolof li sëñ ab Lahat doon wax la jël euh, def ko ay way mhm. way ko ci way woo xam ne. boo koy déglu da lay fàttaliwaat li Baye laxaat doon wax. loolu tax nag Rose Kaly maa ngi koy rendre hommage. ci loolu mënuñu defal ah. ah kon ajarut kàddu gaa nga. xaabaabal nga tey def nga 30 minutes. waaw <laughs> ah, si ci ci barke ci sëñ mais amul solo waaw. ayca mi ngi noonu muy nag kon ñu jàpp ko màggalam gi dimanche bi ñu jëm la ci kàttanu yàlla yàlla bu ko kenn wutee